salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di sant leen gërëm ci accueil bi bu ñu jot dund tey chaque année comme ñu koy faral di def MONAGRAM day ñëw di indi participation euh, pour jàppale comité euh, nettoyage ak assainissement wu euh, comité d'organisation grand màggal bi moo tax tey année bi tam dañu indi muy néew-néew suñu mën-mën. Euh, ci mbirum euh, ceeb diwlin euh, nettoyage bi tam ay râteau la pelle masque t-shirt pour mën a jàppale indi suñu participation jàppale mi nga xam ne ñooy nettoyer ville bi comme chaque année pour mën a accueillir million pèlerins yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw chaque année fii ci màggal bi ñu ngi gërëm ci liggéey bu ñuy def chaque année comité d' assainissement bi ak de nettoyage bi nga xam ne Serigne Cheikh moo ko jiite di ko gërëmtam ci accueil bu ñuy réserver chaque année di ñaan euh, année bi màggal bi euh, ñu fekkee ko ci jàmm dund ko ci jàmm e que chaque année mu dem di gën a yokk ci mën-mën mi ci organisation bi ak yooyu. asalaamaaleykum mbooloo mi ginnaaw bi ñu sante Cheikhul Khadim ba pare ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di sant suñu kilifa gi ñu fi fekk di sëriñ Cheikh di suñu mag teewal fi sëñ bi di sant bu baax dañ fi ñëw ci turu Yibyee. mais teewal fi MoneyGram ndax partenariat bi ñu am di leen sant bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne at mu jot mu yokku sëriñ Touba nag amul tànku ginnaaw tànku kanam la am képp ku jëf ci moom rek da ngay gën di yokk rek li ngeen bëgg ci liggéey bi ngeen indi fii yéen a ko xam yal na ko sëriñ bi mottali yokk ko ful ko ba fi ngeen bëgg a egg yëpp ngeen egg fa waaw. naa di nuyu rek. sama tur ak jëwriñ yi ma àndal ñu war taxaw liggéey bi santaat yàlla bu baax ci jataay bi ñu taxaw te yàgg ko fee def leen sant ñeen ñi fi daje yëpp te sant MoneyGram ndax taxawaay bi rafet na lool lan mu nekk li yàlla boole ba léegi nii lay deme te yàlla lu muy def lu nekk am na fu mu koy jaarale yàlla mi ngi ko jaarale ci alaaji ndaw male xamale ma ak ligue ñu def fi seen jéego yu rëy ci googu nu seq ba lii maanaam tey ci kóllëre gi nag yeesul fenn waaye sunu borom moo santaane yàlla moom moo santaane ku sàmm kóllëre te yàlla lu la sant boo ko defee yàlla moo lay fay kóllëre gu rëy lañ def dem nañ ba déplacé seen i kilifa yu nekk bitim réew yu nekk France yu nekk Amérique yu nekk Maroc ñëpp ñëw gane suñu fii boobaa léegi itam saa suñuy soobu ji liggéey bi ñu def jëf ju ji ñu defaat tey andil ñu loo xam ne dana dalal suñu xel lool ci liggéey bi